Jumsi meme, jumsi meme,

Guinée njabootu Déthié Diouf depuis Ndiédiène ci teewaayu premier magistrat de la commune de Ndiédiène docteur abdul Aziz Mbodj ak la mairesse de Guinguinéo madame Daba Diouf maître elhadji Hadji avocat à la cour et président PTP ay ñu ne ci guddik le 29 avril 2023 danañu amal sabar bu exceptionnel ñu ne kan moy animé sabar bi le grand tambour major Omar Thiam Diambouguma le 30 avril 2023 ca 11h ñu daldi amal cérémonie officielle bi kon dal dama ne le 29 ak le 30 avril